seen pëstéef seen taxawaay bu rafet ak seeni góor ca gannaaw wax naa leen lu lu ne dégg ngeen ko waaye nag loolu amul solo la ngeen def ndigalu sëriñ bi la jumaa ji xam ngeen ne ñoom moomuñ ko ku fi nekkal Sëriñ Tuubaa moo ko yëlif jumaa ji Sëriñ Tuubaa moomu fi nekkal Sëriñ moo yëlif jumaa ji mu nekk ci loxoom moo leen fa tege baatam moo leen fa bàyyi kon sëyiñ caa def wala ñu xalaat ci loxo ne suñu digal di gërëm daayira bu Tarqiyyah ci njiitu lu Serigne Youssou Diop di ko sant ci taxawaay bu rafet ndax nii ko ni ma la ko waxee fàllu ba nga jottali ko taxawaay organisation bi lépp ci loxoom laa ko teg te def na ko ne leen ko Serigne Saliou daa waxee rek isa e-, isa qasatka xurubul ada fa nabbi ilaa amin summa nam Cheikh Mouhamadou Mountakha nee ñoom ay soldat lañ rek duñ tànn di gërëm waa daayira Rawdu Rayaahiin ñoom itam dañu ay jàmbaar xam ngeen ni ñu demee ci yoon bi ni ñu demee ci sëriñ bi waaye jaay nañ lépp jënd ko taalifa di liggéeyee sëriñ Touba ci wàllu xam-xam te xam ngeen ne sëriñ Touba léppam xam-xam la ndax dëkk bi ba mu koy sanc daa wax ne li taallumi wa taalim kanzil kitaab wala xadiisu wala adab la jemo fiddati wala jemo saab kon ñoom liñ féete dara ëpp ko solo Cheikh Mahoud Mountakha mi fi nekkee sëriñ Touba mashru am bi gën a rëy muy naalam bi gën a rëy mooy université bi te ci seen loxo la ko teg te def nañ ci ba nëgë ni bu tabax yi àggee la programme ba la ñu war def lépp jiitu na kon ñu ngi leen sant leen gërëm ci li ñu liggéey ak Serigne Touba ci wàllu boobu. liggéeyam daayira Safinatu Amaan tudd naa leen léegi ñoom itam al amru bil maaruf wa nahyu anil munkar ndax am na ci loo xam ne état mënu caa dugg ndax lu waay réew mi tëriwu ko waaye lépp dinaa ci jël si tuuti. ñoom itam seen taxawaay ñu ngi leen di sant di leen gërëm di gërëm sëñ Modou Lo Ngabou ci taxawaay bu baax a baax di gërëm daayira Touba ca kanam ñoom itam nooru daari ni yàlla def na nooru daari lii sax maa ko ci bindoon ngir ndax boo Touba ci kanam rek lañu bind may nañ jiite leen nooru daari yàgg na 2016 wala 17 la fii ñu woon sax ci saal bi ma toog mm-hmm, mm-hmm. ñoom itam bañ juddoo léegi yàggut waaye seen taxawaay ak seen yitte ak seen positif ñi ngi góorgóorlu ci dëkk bi la Cheikh Abdou Lahad Mbacké daa wax ne loolu ne fàng diisu ko woon ko amu bët te la du di gërëm waa Xuddaamul Xadiim ñoom it ci seen yitte ak seen positif ak seen taxawaay ak seenu jaayante ci Sëriñ Tuubaa ngir sàmm noonu noonu ji ak mboolem daayira yëpp nag xam naa ñàkk ñu ma fàtte waaye xamul sëñ bi doy na. Mhm. tudd géemu solo li am solo mooy li ñuy jëf ngir sëñ Tuubaa di yéemaat sëñ Tuubaa rek ndax sous-préfet ngi di topp te bu ñu wowoon gouverneur bi mu topp ndax ndaje ma ñu fi njëkk def ginnaaw ba sëriñ mu jox ndaje mu njëkk ba ci jiiti réew mi teele na ko. Mhm. may sa topp ma njëkk defaat fii te jox ndigal Baay Faal yi boo gouverneur dañ ko mu ñëw. Mhm. kon loolu rek la Cheikh Abdoul Ahad Mbacké daa wax rek daa wax ne woo goñ daa woo Sëñ Tuubaa ci njariñ gouverneur di euh, commandant di ko mu leen di wusi moo leen tàggatal buur yi ñu leen di wusi ko bañ kon loolu mooy li jël sol mm-hmm. ci biir wax ji euh, maa ngi euh, diggalaat commune bi Abdoul Ahad ndax xam ngeen nawet bi jub jub si na mu waxaat ak chef de village délégué quartier yi ñu gën a góor góorlu ci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 ndax Daaru Manaan gii nga xam ne brigade spéciale bi fi Cheikh Abdoul Ahad Mbacké njëkk def fa lañ ko def Daaru Manaan xam ngeen ne fa lañ doon visité Sëñ Tuubaa visité visité Sëñ Tuubaa ngir bëgg ko songu dëgg la alkaati yi ak soldaar yi ak spécial ñëw di visite kër gi di ko tuumaal tey gendarmerie spéciale foofu la ne kon gendarmerie bi li muy nekk nekk ci ron kilifteefu état ndégalu suñ mbir yi